di masawu coono it adduna bi yëpp ci lii nga xam ne xew na mooy coronavirus bi nga xam ne mbooleem adduna bi yëpp tey e, fépp foo dem kuy déglu ak kuy gis yëpp gis nga lii mu def si réew mi gis nga lii mu def ci adduna bi kon nag e, képp kuy jullit wala képp kuy doomu aadama tey e, mbir mi laal na la lii nga xam ne nag laal na adduna bi yëpp bàyyiwuñu bàyyi ñun Sénégal lu ci jiitu réew yi nga xam ne am nañu doole am nañu koom-koom am nañu organisation am nañu xam-xamu paj am nañu xam-xamu defar ay garab am nañu xam-xam yu nekk lépp loo xam ne lépp luy àddina doomu aadama di soxla si àddina soo demee foofu foofu lay fekk baax ñooñu am nañu ko te mucc ñu lii réew yu jullit yi tey jii su fekkente ne ñi ngi wax euh, jikko ak comportement si réew jikki jullit yi la waroon a jëkke depuis mi ngi commencé law euh, président la république jël na matuwaay bu mat sëkk wax na si jëf na si euh, yaakaaroon nañu ne tey mbir mi di egsi fii kenn ku nekk di nga jël sa responsabilité bu ma sëkk nga taxaw si fag sa bopp faggu sa dëkkandoo tey jii su fekkente ne wax nañu ne dinañu tëj marché yi su ñu ne dinañ tëj marché yi xam leen ne du kii dogal na tëj marché bi dafa def lu ko neex rek déedéet dafay sàmm njabootam aar njabootam si gis na ne lii nga xam ne mi ngi war a ñëw war nañu ragal na lii dina su dalee si marché bi ñëpp fay dem te ñëpp a jot si loolu loolu moo tax mu jël dogal jël jël jël dogal tëj marché yooyu kon jërëjëf monsieur le maire bi président de la république waxee bi mu waxee ne nañu tëj yëpp def yëpp charte yi ba pare yow ñuy jëkk appliqué ci programme bi ci nga bokk ma naw la ci lool nag parce que bëgg njabootam dëgg-dëgg mooy sàmm sa njaboot aar sa njaboot lépp loo xam ne yaa ngi seen muy ñëw sa njaboot jar na sax nga taxaw bu dal ci sa kaw nañuy raxasu loxo yi nañu bàyyi saafante bi nañu bàyyi euh, jegiñante bi nañu respecté distance un mètre bi un mètre cinquante sax nañ ko respecté nañu góorgóorlu des ci biir kër yi kenn ku nekk même sooy dem bàyyi leen xale yi ci biir kër yi xale yi bàyyi leen ci yur kër yi bu ñuy dem de gauche à droite nañu respecté la nga xam ne wax nañu ko bu kenn dem këru kenn bu kenn dem këru kenn ku nekk na nga toog sa biir kër mosquée yi protège la sooy wax ngelaw la te ngelaw li mun na dem fu ne kon nag kenn ku nekk na nga takk sa masque ci biir kër yi kon nag Mbambilor na ngeen góorgóorlu lii euh, euh, programme communautaire bii ñëw euh, virus communautaire bii ñëw nañu gor gor ba nga xamne mu am fi communautaire mo gëna dangereux parce que xamul loko ko yor kenn ku nekk mo ne nga joxe kilo ciep ak kilo suukar nga saraxe ko nga def la ilaha illallah témer yon nga def astaghfirullah témer yon so paré nga def hasbunallahu wa ni'mal wakil fuk ak ñaar so paré nga def lu mu tuddati laa ilaha illallah fuk yon ak ñaar so paré nga def basmala fukki yoon ak ñaar soo paree nga def salaamun qawlan min rabbin rahimin ak wallahu yaasimuka min annaas fukki yoon ak ñaar nga bu nekk nga nga ñaan ko ndax yàlla musal ñu ci balaa bi nga xam ne euh, lëmbale ne adduna bi